بسم الله الرحمن الرحيم فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجاني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بك جلتي بك طالبي غنا بن سنتي يالا جلتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di balu xaq di leen baal di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla nañu boole jéggal ah lii ñuy bëgg a waxtaan ak yéen nag moo jëm ci bërëb bii ñu gën koo miin ci jàkkay murit ngeen gis tabaarakallaahu liggéey bi nii mu taaroo macha allah bi yàlla dogalee liggéey bi yegg ñëpp xam nañ ne dañ fa daan faral di julli ñaari ayit yi muy ayidul fitri ak ayidul adha muy korite ak tabaski waaye eh, ginnaaw bi daal bi ñu waxtaanee ak mag ñi waxtaan ak kilifa yi ñëpp daal gis nañu ni li gën ci bërëb bi tey mooy def ko jumaa ndax sëriñ bi lépp lu mu am rek jullee ko ko gënal te ñaanoon na suñu borom ni ko wajaal buyuti kullaha masajida yàlla nag ma defal fépp fu may askanale ni maa ko moom muy jullikaay kon nag bi ñu waxtaanee daal ak mag ñi ak kilifa yi gis nañu ni daal rafet na ñu def ko jumaa tey jaadu na yell na jekk na léegi nag incha allah ñu ngi ci waajtaay wi di sàkku ñaan ci mboolem fu jullit nekk ci àdduna bi ñu ñaanal ñu ba projet bi incha allah ñu yeggale ko date bi nag incha allah le 7 juillet la le 7 juillet incha allah ñu ci yàlla yóbboog jàmm ci la ñu bëgg a ubbi jumaay ji xam naa bu jigesee incha allah lépp lu ci war ci communication daañu ko def incha allah su ko defee nag am na commission buñ taxawal euh, sëñ Dame mbay mi moom moo ko jiite xam naa incha allah daam dama lay jox kàddu gi nga waxtaan ak mbokk yi commission yi ak fu mu toll ak ci maanaam fu ngeen fu ngeen bëgg a yegg ki incha allah. bismillahi lazi la yadurru ma'a ismihi shay'un asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk taalibe yëpp euh, ni ko imaam waxe jàpp nañu ubbi fii juma

ñuy ñaan yàlla euh, mu jàpp leen ci ba liñ ci yéen yëpp ñu man ko euh, comité boobu nag dañoo ubbi ay commission yoo xam ne ni lu toll ci juróom-ñaar ñuy ñaan mbokk jullit yëpp ñi nekk ngaay ak lu ko wër ak ñi dëkk ngaay te yéen nekk ci yeneen dëkk moo xam ci Sénégal wala bitim réew ñoom ñëpp ñu xool nuñ ci jàppee pour kë ñëpp àndandoo liggéey bi bi ci jiitu mooy commission des finances parce que dañoo wax ni dañoo bëgg daf ko ubbite gu gu mag a mag donc dafa laaj ay moyens moo tax commission euh, commission boobu liggéeyam commencé war na ko commencé léegi ba ba buñ ci àggee lépp loo xam ne am nañ ko ci yéen ñu def ko. moo tax dañu ubbi ay euh, compte yoo xam ne ci Orange Money la nag ak Wave xam naa bu ñu ñëwaatee communication nañ jox numéro yi pour nit ñi nga xam ni dañoo bëgg dugal te fekk seen jot may lu ñu si ba fii ñu mën ko ca dugal. bëgg nañu ubbi aussi benn compte banque boo xam tamit dañoo bëgg koo xam ne fa nga nekk dafa mën a dugal nga dugal ko ci fekkee ni sa jot mooy la nga ñëw ba ci fii comité bi nekk. dina am ay carte barkeelu yu ñuy def yoo xam ni dinañu leeral ni dina am yu dix mille yu cinq mille ku nekk bu loo xam ne moo tolloo ak sa ak sa moyen nga mën koo jënd ab nga nga nga def ko si. dina am ay lettre de soutien aussi dañ seet yenn kilifa yoo am nañ ci ñoom yaakaar ñu envoyé leen ko dem ba ci ñoom waxtaan ci ak ñoom léegi su ko defee yooyu daal dañ bëgg commission des finances dès dès à présent mu nekk ci. commencé nañ tamit seet ay kilifa ñoo xam ne mun ñu leen a bañ a gis demoon nañ ki nga xam ne moom mooy kilifa dëkk bi monsieur le maire wax naa na ci ak moom. mu wane nu jàppale bu ñu fas yéene jàppale. waaw te mi ngi nii taxaw sax xam naa après dañ ko jox kàddu mu mu mu kii. demoon nañ tamit ak ci sëñ Matar mi nga xam ne moo fi nekkal xalif bi. ci moom lañ njëkke sax. buñ ci fa lañ dem ci monsieur le maire te loolu arrêté guñ ko képp koo xam ne kilifa nga rek te yaakaar ni ci sa wàllu xel ak sa wàllu xalaat ak sa wàllu jàppale man nga ñoo jariñ nañ dem seeti leen. donc commission yi ginnaaw commission de finances am na commission organisation. ndax mbooloo fu ñuy tase dafa laaj organisation te fii mbooloo lañ fi lañ fi yaakaar nañ fi ñëw kon commission d' organisation boobu taxawal nañ ko am na relation extérieure maa ngi doon wax sàng naa ñu nekk ci dëkk bi ak ñu fi nekkul donc am na maanaam jokkoo buy aman buy am suñu diggante ak ak ñooñu commission boobu moo koy dox bi jiitu nag ci yëpp mooy commission culturelle bi parce que fii barabu jaamu yàlla la jumaa la di ci gën a jiitu mooy lépp lu ñu fiy def mu tegu ci charia tegu ci sunna tegu ci li nga xam ne moom mooy moom moom la war a doxee loolu am na ñuy wax noonu la ñu ko dénk mooy borom xam-xam ay ay imaam yu fa nekk yooyu mu am tamit benn commission yoo xam ne dañ koy doxale diggante euh, euh, comité bi ak daayira yi parce que ngaa yi nee na ñu ñaata daayira sëñ Moutala 54 daayira te dañoo bëgg daayira yëpp ñëw dugg ci loolu tamit am na benn commission boo xam ni war na dox lool ñun tam am na commission bi day dox diggante ak soxna yi ndax fii ne am na fi ay mbootaay am na fi ay kii yu ndey daara am na ay ay groupement de femmes yooyu yëpp dañoo bëgg ñoom ñu ñëw jàpp ci ci liggéey bi def naa commission yi juróom-ñaar laa waxoon euh, wax wax naa ah. waaw juróom-ñaari commission yooyu moom mooy li nga xam ne moom mooy kii quoi. mais xam naa comme que euh, monsieur le maire dafa dafa xaw a kii dafa am yitte yu muy doxit dama bëggoon a yamal foofu kàddu gi rek. su ko defee bu ñu tasewaatee yi des nañ ko kii. waaye salaam maa leen di gërëm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. asbil sutóori astix umóori kasur xuyóori bila kibar. yàlla nangul sunu koor euh, def jàmm ci dëkk bi ak gox bi def jàmm ci réew mi ak àddina bi di rafetlu euh, ni nu taarale bërëb bi ndax bërëb bi kat moo njëkk taaral boppam fu nu wax ni sëñ Touba wàcc na fa foofa taaru na déjà bu nu ko defaree nii nag taalibe yi am ci taxawaay ñu jullee fi tey euh, dañuy sant yàlla di sant aussi sëriñ Matar Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool di ñaanal ñi eh, imam yi dëkk bi yëpp ak eh, borom daara yëpp ak délégué de quartier yeeg di wax ni imam Pape ak sëriñ Daam ak ñi ngeen àndal ñëpp mënuñoo lim ñëpp ndax béréb bi ñu fi liggéey bari nañu ñoo ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay ak euh, seenu taalibe ndax nee ñu ak taalibe murid taalibe ak taalibe rek moo indi lii ñi ci jàpp itam takku def ci seen alal ba mu mel ni ak taalibe dong la kon lépp sëñ Tuubaa ak yàlla euh, li ngeen wax itam mooy bërëb bu mel nii euh, macha allah taaru na ba pare ba fa sëñ bi wàccee waaye ñu yokk ci ni mu mel nii Euh, respecter norme yi nga xam ni moom la diine wax yëpp ci fi nu mën a dajaloo mag ndaw góor ak jigéen euh, sell ni ngeen bëgg yokkaat ko encore pour ñu mën di fi julli loolu dañ koy rafet euh, dañ koy rafetlu di ñaan yàlla yàlla may ñu ñu àgg jàmm di wax nag waa Ngaay ak waa Sénégal ak jullit yi ak murit yëpp ñoom ñëpp ni ñuy jàppe ci li xew fii ci Ngaay ak ni sëñ bi bëgge won ngaay ci boppam ak ñi yor der bi ñëpp ni nu jàppe ngaay ñoom ñëpp ñu jàpp ci ba li ngeen li nu misal li ngeen ak ba nga ni sax nit dina jóge Touba di ñëw sax di julli seeg ñun waaw loolu mën naa am parce que bu bi pare donc ngeen ñaan aussi yàlla may ñu liggéey bi pare parce que liggéey bu ñu joxe kan ko joxe dang nga koy ñaanal ndax bu feebaree baa mu tëlee baa accident am liggéey ba day taxaw te ñun tëli boobu mooy sunu jumbuxu cordon ombilical bi ñuy taxalee ak Touba. parce que di nit mën naa añ Touba ñëw julli si mën ngeen añ fii dem julli ji kon ngeen ñaan yàlla may ñu eggale suñu ñaari tëli yooyu Baba Garage ak Cëlmaxa euh, Touba bi. may leen wér yéen itam. ni bërëb bi selle yàlla gën di ko sellal. waa dëkk bi itam xam ni fii bërëb la boo xam ne dañ fa war am taxawaay yu sell. di fi def lu sell di fi wax lu sell di fi yéene lu sell di di moytu def ko bërëb boo xam ne rafet na sell na bërëbu sëñ Tuubaa rek mu nekk bërëb boo xam ne daal day daje dajekaay mm-hmm. ak ak ak fu ñuy toppe diine ak juma ak jàkka dafa bokkul mm-hmm. loolu itam euh, léeg-léeg nit ñi war nañ di ci bàyyi xel mm-hmm. euh, maa ngi ñaan yàlla mu may ñu àgg tàggale maire bi dina ci jàpp ndaxte Euh, dee ñu jàppitam itam comme taalibe mais dee ñu wax itam ñi nga xamoon ni ñëpp xamoon nañ leen te ñu jàpp ci ñëw jàpp ci pour que mbébét boobu ngeen am mu àgg ñu sant bu baax nag sëñ Muntaxa ci ndigal yi mu leen jox ak euh, sëñ Matar itam jërëgéen bi